maaleykum salaam sama doom fay naa leen. yaay booy tur bi nan la. Adja Grace Sidibé. Adja Grace tey mhm. ngeen teew ci. Mhm. en tant ay responsable après. Mhm. ànd ak Adama Faye ñëw taxawu si Mbaye Diaw ana nu ngeen dundee bés bi. xanaa bés bu neex rek ndax mbay Diaw nit ku baax la ndax. sunu leader bu baax bi kàll macha allah moo tax ñu xam mbay jaw ndax aadama euh, ku ko xam rek da ngay baax baaxam a tax boole ñoog Mbaye Diaw Mbaye Diaw nag di def safar woo ñu si ne nañ ñëw jàppale ko si defar ñu ñëw nag teg mbana yi nag di togg ak xale yi APR yi ñëpp a ngi fi. kàll macha allah ñuy def nag safar gi ñu ngi nii sóor nañu añ bi. ñu ngi si di xaar. diggante seen leader Adama Faye Mbaye Diaw diggante bi dëgg rek la ndax dëgg rek mooy moo moo lal lépp dëgg moo moo moo lal lépp te dëgg lu mu lu mu deful rek loo deful si dëgg rek mook zéro ñooyam te Adama si yëfu dëgg rek lay dem Mbaye Diaw tamit si dëgg rek lay dox. looloo tax seen dëgg diggante dëgër loolu kese la fay naa leen sama waa kër yi jërëjëf. màggal gi laa ko boole yàlla na faj aajoom sant naa ko gërëm naa ko bisam bii nag daal na ko yeggale ci jàmm gërëm nañ ko ak ñi ma àndal nag mbay jaw daal dañ koy baag sëñ Fallou ak sëñ jàmm ak xéwal. maa ngi leen di fay nuyoo maa ngi leen di delloo nuyoo. man Ndeye Khady Ndiaye laa tudd dëkk ci Grand Yoff waaw. Ndeye Khady mhm. dëgg la. seen digganteeg Mbaye. suñu digganteeg Mbaye de boo ñu ci laajee dañ ciy wax te buñ ci waxee dinañu wax ci lu ñu neex ndax Mbaye Diaw dafa nekk koo xam ne benn dafa social dafa nekk ci Grand Yoff ñun ñu dëkk ci Grand Yoff nekk ay mère de famille. yore suñu ay famille yore suñuy doom yore suñu ay boroom kër mbay jëw dëkk ak ñun dëkk ak ñun dëkkuwaay bu rafet maanaam Grand Yoff ba Grand Yoff daj laa lay wax amul kenn ku naan mbay jëw xëy nga joxu la ginaar yoo togg sa biir kër joxu la euh, ceeb boo sóor joxu la pombiteer ne la toggal joxu la soble ne la toggal boole nag fu nit waaye amee soxla ñëw ne ko mbay mu fëgg poosam làmb ne la am fajar sa soxla te mu doon ci sutura Khady Ndiaye Maka Grand Yoff Maka 2 numéro 8. ñu soo ma ko waxee dina ma neex lool nga laaj ma ko dina ma neex parce que Mbaye dafa nekk ak ñun nekk fii Grand Yoff nekk ak ñun man maa ngi ànd ak moom vingt ans 20 ans maa ngi ak Mbaye Diaw mais mosuma mer su ma ñëwee sax di ko wax sax daf may wax Xadi Njaay man may politique mu jàppale ma ci lool nag ma nekk ak ay néew di doole ñuy xiif di mar mbay jaw di ko faj te kenn yëgul may jël ordonnance su jàmbur nit koo xamee ne dafa feebar amul doole amul dara ay waa këram jaaxle ma woo ko diggu guddi ne ko mbay jaw dama fee am ordonnance ni ki nii mu taal otoom bàyyi jabaram bàyyi doomam bàyyi ñëpp ñëw jox ma ñëgu ordonnance ne ma demal jëndi ko ma dem jëndi ko si saa si indi ko mbay jaw ku xiif moo ci gën ku rafle moo ci gën ku ñuy wax ne nii ki nii sàmbate ku njaay sax mbay jaw dina def tout ba ne ma xadi njaay indil ma ko daf may wax xadi njaay ma ñëw ne ko mbay jaw kii de kër gii dafa am tel problème mu ne ma xadi njaay ñëwal ren nag yàgg na lool ah liit nag daaw la ko commencé def te li ñuy wax rek yëfi sëñ Touba tànki kanam la am waaye amul tànki ginnaaw kon nag dañ ci sant bu baax ndax lii mu def tey buñ ko mënoon nun noo koy def man de bu ma ko mënoon lii mu def damay def lu ko waaye nag ginnaaw yàlla def loo man noo ko ko dañ ci sant yàlla ànd ci ak moom waaw togg jox taalibe yi julli ci yàlla yi rek laa wax togg di jox julli ci yàlla yi ku ko man sant yàlla la waaw mbay nag moom li ma ciy wax du bari ndax sama xarit la daal yàgg nañ lool Martin moom ñëpp ñu bari xam na maa waaw. ñuy faral di dégg Mbaye jaw mu Serigne Fallou kon mu mel ni diggéem ak Serigne Fallou for na lool rëy na lool ana ban ban gis-gis nga am ci digganteem ak Serigne Fallou Mbacké. waaw kooku nag xam naa ne sama wax du ci sori ndax li tax sama wax du ci sori mm-hmm. nit du wax lu mu xamul. waaw. Euh, ñi ma ki ma ko xamel daal muy sëriñam sëñ Mbàkke Soxna Lo moom mooy seen sëriñ dem naa ba këram it siyaar ko foofa waaye nag sëñ Fallu moom tali bi yëpp da koo sopp waaw ndax képp ko am sa sa sa du tee looy wax da nga naa barkeb sëñ Fallu boo jàqet ca ngay ñaan waaw boo jàqee moom sëñ Fallu ngay woo waaye sëñ Mbàkke Soxna Lo mooy wasilaam waaw loolu moom xam naa ko ci moom waaw. jërëjëf waaw. sant nag lool nag di gërëm yéen ñi taxaw fii nag ah ci bisam bii kontaan naa lool. jërëjëf ndax ndax bisu Mbaye moom sama bis la. sa bis la waaw. yàgg nañu lool lool daanaka du xëy te woowu baa ma xëy xëyuma te woowu ma ko. essentiel jaxasoo nañ daal cib gàttal lu baax rek naa laa xam ci moom ak fulla ak fayda nag ak nangoo liggéey ndax moom dimanche sax da koy liggéey. essentiel euh, nit ku baax la ku am fulla ci li muy def la te it euh, du yàq alalam maanaam comme lii mu def nii ci safar bet wax dëgg yàlla lu rafet la euh, bari nañu ko mën te defuñu ko comme nii mu ko defee man mi waxe yow nii mu ko defee mën naa ko ni xëy na xol yeey wute ba am fa may jëf feneen nit du kile xëy na du bokk ba tax na daal noo ngi koy rafetlu te di koy ñaanal yàlla na ko gën a mën barke Seexul Xaddim yàlla na ko gën a man yàlla na ko gën a man barke Serigne Touba yàlla na ko gën a man te nun ñëpp it yàlla jox na xol xolub ñuy jëf ci sëñ bi man na yàlla na sam borom dolli suñu pas ci Serigne Touba moom doo nga fi nekk nag te gis nga fii bu ne jàmm yàlla gépp joxew ñama ci gën amul pertement amul ngistal am fi toll ko fi yokk tam nit ñi lekk ko a ji bari ndax ñi ko soxla bari na julli yi lu ñu sant la farata la nañ koy def rek ku ju mën a matale julleem sax julli gu correct bariwul waaye comme lu ñu sant la nan koy def te bàyyi suñu bopp sëñ bi man de lu ma def lépp addiyee sëñ Tuuba la jullee addiyee sëñ Tuuba bu ma wóoree addiyee sëñ Tuuba lépp sëñ bi te daañu ko nangu ful ko dellu sil ma ko kon jërëjëf sant naa mbay bu baax jërëjëf xëy mii dama koy ñaanal ci yàlla sëriñ Tuubaa yokk xéewalam yokk wér gi yéen ñiitam yàlla na yàlla yokk seen euh, daraja jatu meetim di sama xale buñ ma jox déggal na ma te liñ koy def loolu lépp moom it mi ngi koy def moom it espécial spéciale maa ngi koy sant bu baax ndax ba mu fi ñëwee ba léegi néew ma benn mu ni fukk xam naa ne yar nañ ko yàlla na ko yàlla may borom kër bu baax te yàlla na dem ba société bi mu raw ci ci barki naa Seydina Mohamed barki sëñ Mbàkke Soxna loo barki sëñ Saaliw sama sang euh, ci barki Serigne Touba sant naa ko bu baax nag bis bu ne dañuy xuloo àndaat loolu mu ko waxee noonu la amee Euh, magam Alaaji Dudu Jawit maa ngi koy sant bu baax ba grand Jaw bàyyiwuma kenn ak Pape Jaw yéen ñii itam na leen yàlla gën a jàppale ba seen grade yi gën a yokku ba bu déwénee lu ngeen man ren ji bu déwénee yàlla na ngeen man fukkam ci barki seen Touba yàlla nañ ko teewee nagam siy déwén sant naa sama soxna yëpp ak samay doomit maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax man waa Ngaye Jaxe laa maa ngi sant waa Ngaye gépp jërë ngeen jëf waaw bisimilah rahmaani rahim ñu ngi fay ci kontaan ci invitation bi tur bi faatu juuf la. Fatou gis nga taxaw ci diggante waa boo ma ci laajee damay kontaan macha allah macha allah laaw la cat bisimilah rahmaani rahiim mbay dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér mbay dafa nekk sama xarit nekk sama góor féete ma fu baree baree bari. dañu xamante ci liggéey rek lañ xamante man commercial la moom muy commerçant yàlla def maak moom ñuy jëflante mais sama diggante ak moom dafa paase diggante commerçant ak euh, jënd ak jaay mbay sama lépp la sama xarit la sama frère la mën naa ni mbay daal lu yendu ci moom fanaan ci man lu yendu ci man fanaan ci ci ci mbay moo koy ñaanal gudd fan ak wér lii mu def nii tey Grand Yoff duñ ni guleet kenn du ni guléet ku xam mbay Diaw rek gis li mu def tey doo ni guléet man du ma du ma murit man xaadar laa damay gàmmu chaque année Ndiassane mais sama sama gàmmu Ndiassane chaque année sama nag Mbaye Diaw moo koy jënd même su ñëwul loxoom day ñëw taxawaayam day ñëw social bi da cee yàgg mbay da ngay ñëw ci boutique bi war a jënd déedéet da lay diwal sa mbuus ba mu fees soble pomme de ginaar boole ci ay jus boole ci kaf ak ree di jox sa ay doom mbay di la woo téléphone di la nemmeeku mbay daal yàlla moo ko baaxal ni mu mel nag mbirum yàlla la dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér xam nañ ci moom bu amee wér am gudd fan lépp lu mu bëgg ci doomu aadama yi dina ko am nit ku baax la dañ koy ñaanal rek man moom <laughs> yàlla def na ni mënu ma wax wax mënu ma ci dara mais Mbaye Diaw moom wax dëgg yàlla il faut ma wax ci moom parce que dañ naa nit ki boo ko gërëmul doo gërëm yàlla te nit bu lay defal danga koy gërëm pour au moins ñeneen ñi nga xamante ne xamuñu ñu xam may daal dañ koy ñaanal gudd fan ak wér fu mu bëgg egg yàlla na ko fa yàlla eggal ci barke Seydina Mohamed safaram gii mu def ren bu déwénee yàlla na yeew fukki nag di tànt Grand Yoff koñ ba koñ te xam naa ni dina ko def ndax xol bi àttan na ko te nit ku baax la daal macha allah kontaan na ñeen aussi ñu ngi leen di ñaanal leen jéggalu aussi ti depuis ce matin ba léegi yéen a ngi fi bëgg dem ñu téye leen waaw ñu ngi leen di ñaanal yéen gudd fan ak wér seen Euh, réseaux sociaux bi yóbbu leen fu sore sore sore macha allah yal na yàlla def jàmm amin amin amin leen jarbaat ni fayee buur di salaamaaleykum di sant sama sëriñ alaaji du Jaw waaw lépp lu ma man mooma safar bi moo tax ndax man mooy sama yaakaar àdduna ak alaxira gannaaw ba sama papa gaañoo ba ma sante yàlla julli ci yonent bi sant Seydina Mohamed sant sama papa sant sama yaay alaaji dut jaw laay sant ak pap jaw sama rak awma seen fay tey ñoo ma kàttanal dooleel ma ba ma mën a def lii tey jiite ko waaw muy alaaji dut jaw parcelle di jàmbaari fakkatal góor goo xam ni maanaam doom aadama yëpp ràññee nañ ko yëfam rek la soxla ba mu juddoo ba léegi yëfam lay lekk ku ko xamul dégg nga ko lii ci moom laa ko xamee moo tax tey ma man lii maa ngi koy sant di ko gërëm muy alaaj Dut Jaw léegi laaj ma leneen. sama nijaay Mbay Jaw ñu gis ni ren mooy ñaareeli at bi ngay def safar. waaw ànd ceeg waa marché Grand Yoff. Mhm. ñu mhm. sama diggante ak bi nag jàmm ak salaam rek laa seq ak ñoom ndax man aw ma fekk xaar ma yàlla su ma xëyee sama place sama kër ku ma meret xaw ma ko merewuma fi kenn su ma wootee ñu wuy si ma bu ñu safar nag. man damay faral di ànd ak ñi may àndal safar sama safaru bopp ndax man dama bari ay nit mun kenn mënumaa yóbbaale ku dul yàlla ak alaaji du jaw parce que bu may safar nit ñëpp dañuy ñëw ni ma yaa gis tey ku ne naan ma tibal ma bon su ma bokkee day indi ñaaw moo tax ma ber sama safaru bopp di ci dolli nag sant alaaji du jaw di ko ñaanal mu gudd fan ndax kooku góor la goo xam ni euh, sëriñ Mbàkke soxna loo da koo ñaanal sëriñ Saaliw ñaanal ko baayam ñaanal ko yaayam ñaanal ko bon képp ku toog ci keppaaram rek góor yàlla nga mën a doon muy Alaaji Duut Jaw bu may wax ci moom laay commencé bu may teer ci moom laay teeral waaw. ñu gis ni boobu jigéen ñi. jigéen benn baat bi la ñuy sama diggante jigéen ñi nag dafa yàgg. ndax man avant may ànd ak Adama fay jigéen ñi dañ maa toog ma ànd ak aadama fay mu gën a raw moom it nag muy sama xarit boo xam ne leer na Sénégal gépp mbay jaw mbayum Adama fay la ñuy wax ndax dañuy ragal péete day xañ wërsëg te man ragaluma péete mën naa ni bu ma politiquee Adama Faye tax man musuma politique fii laa daan toog di dagg bu mu gàcce yi waaye nag dem naa ba nga xam ni aadama fay lu mu yëngu ma tax ci rip lu mu yënguwul lu ne mën naa koo suur ndax moom sama xarit la sama nit la su ma waxee loolu rek junj nooy na borom xel su ma àggee këram ay Aïcha jabaram ci kaw la may yéege lu ma bëgg mu ni ma tonton Mbaye Diaw moom it bu ma àggee ba korite gi ñetti parfum yi ma jox mat na trois cent mille damaa fekk bunt bi fees mais keroog ba ma ñëwee dafa ne ma boo ñëwatee boo ñëwatee taxaw sama buntu kër danaa la mere muy Adama fay bon nag lu ne maa nga ci waaw. Eh, Uh-huh. est que boroom mel uh-huh. tuubaay raw ndax fii lancement la ab ab film mënuñu ko lancement ñu koy dawal ba mu jeex mu yem Touba waral lii Touba yi raw foofu ay xar dañ fay dee ay michu dañ fay dee ay nag dañ fay dee ay gileem dañ fay dee ndax ñu lépp sëñ Saaliw dañ koo fàggul ak alaaji dut jaw Touba yi raw maa ngi gërëm ñi fi nekk ñëpp. di gërëm sama xarit bii toog duma tudd turam kii toog dama koy gërëm du ma tudd turam nag waaw di gërëm waa man sa grand bi yëpp ñoom Fat Diouf Ndey Xadi ñoom Mariama Assou Magam Cheikh Mbay Cheikh Dieng Mor Lo Aliou ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm su ma limee rek damay juum parce que tey gis nga lii i bu Adama Faye maa ngi leen di gërëm Grâce yi maa ngi koy gërëm Mounas Ndiaye maa ngi koy gërëm buur géwal maa ngi koy gërëm ndax tey dalaa woone la foo nekk demal wuy ji mbay jaw te facturé wu ma benn dërëm loolu nag su ma doyul dara duma doy li commencé Grand Yoff ba parcelle dama leen di gërëm di gërëm sama jabar ndax ku ma déggal la di gërëm suñu waa kër di ko commencé ci Fan Matar Khady Sarr ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm as ñoom Assou Ngom Sini Gaajo Anta Jama doomu alaaji Dut Jaw yëpp maa ngi leen di gërëm Grand Jaw Pape Jaw sama rak Modou Lo Malick Diaw Mbacke ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm Marème Diaw faat Loum ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm Anta Jama siini Gaajo sama xarit sama féetewaay suñ kër daal ku ma fa limu rek dama juum